jamonoy waxtaan la ñu toll ñeel njiitu bokk moomeel seeni liggéeykat ci gox yeeg goxaan yi rawatina ci wàllu wérgu yaram ñoom gis-gis bu wute lañ si am ak seen jëwrin li ko waral mooy dañoo jàpp ne dañ leen seetaan jëm ci seenu sàkkuteef ñeel yokkum salaire yi kuréel gi leen jiite di ñaawlu anam gi ñu ñàkk sàlloo ko seeni àq tax ñu mer ba futt rek jëmale ci gouvernement bi ñu ñu interpellé ministre bi di ko wax ne quatre mille vingt et un yooyu ginnaaw ministre pour mu recevoir au moins ñu waxtaan mais ba léegi mu ngi léttu léegi ma ñu. liggéeykatu bokk moomeel yi dal nañ bu baax a baax ci kaw percepteur bu Pikine bi nga xamante ne bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu dafa lajj ci liggéeyam. la xew Pikine ñu koy ñaawlu fa mu fa mu gën a fa mu gën a méttee parce que am na loo xam ne nii jaaduwul ci liggéeykat liggéeykat bi nga xam ne ni salaire am dafa néew lool matalu ko dara nga bëgg ci dagg as as comp as lëf fii ak juróom ñu ngi koy dénoncer jusqu'à la nouvelle jusqu'à la dernière énergie am na loo xam ne ni duñu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. kuréel gi ëmb liggéeykatu bokk mooy yi nar a tengal xeex bi tax ñu nam ma banque seeni yoxo lu ëpp ñeenti fan lu ko tàmbalee ba sub 15 août. ñu ngi alerter l'opinion di leen wax ne lii nag bu dakkulee nga xam ne ñun kat nañu saafaraal ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñu war a fay fay ñu leen incha allah dinañu sumb xeex boo xam ne ni semaine bu nekk dinañ décréter 96 heures dinañ def aussi marche nationale. liggéeykatu bokk moomeel yi amal nañu benn minute de silence ngir rek fàttaliku seen njiit bu fi jógee di Sidya Ndiaye laata rekk ñuy soobu ci seen xeex bi ñu nar a amal fépp ci Sénégal tey yaakaar rek am ci ndam.